naa fi ci ñaari cër benn bi mu jëm ci li ngeen doon yëngatu te mu concerné ñu ñun ñëpp ngeen di ko def rek dafa jar ñu teew dalal leen jàmm wax leen ne yëg nañ ko et am nañu mbégte ci loolu am amee ci Thiès beneen bi mooy moom mi ma ci woo ak nim ma ci woowee il fallait ma ñëw yàlla xam na ni ci suba bi ma duggee sama bureau maa ngi koy doog génn nii te dafa am ñaar ñu desoon ci rendez-vous yi dama mujj ñaan leen ñu may ma parce que bëgguma woon mbir mi gën a yeex pour wax la ni amoon nañu yéenay teew fi euh, ci diggante bi nag li ma ci gën a ñor mooy sooy def may teew wala may def ngay teew dina wane ni politique yëkkatiwuñ Maodo Malick dafa doon ku bëgg cees gëm cees bëgg senegal gëm senegal loolu lu ma xam la ndax du tey lañu xamante maak moom te yàgg na dox loo xam ne doxu suuf lay doon saa yu mase toog yaakaar ne lii am na njariñ pour senegal ci loo xam ne dina am te ñu ëpp duñ ko xam ci jamono yi nga xam ne parce que yenn saa yi am na ay mbokk yoo xam ne ay taskatu xibaar la ñu ruusit yu sew yooyu yenn saa yi dina leen neex ci jamono yi nga xam ne jote amoon na ci nguur ga fi newoon ba ñu teg pexe ngir dàq président Macky Sall bi jiite woon assemblée nationale à l'époque diggante xew ci dëkk bi jamono boobu damaa jiite woon parti politique moom bokk na ci ñi ñëw wax ma ndax digganteem ak président Macky Sall à l'époque président assemblée nationale la wax ma jafe-jafe yi mu nekkoon ak njiitam daan ma seet si bu ñëwee ma koy xelal di xelal Macky Sall ngir mu moytu ak naka la war a doxale ndax moment boobu c'était un combat républicain ndax koo xam ne dafa nekkoon président de l'Assemblée nationale ñu bëgg ko daaneel ndax politique jamono yooyu man mii ak moom ñoo ko daan dox man mii ak moom ñoo daan lijjanti loolu te mosuñu bokk maa moom politique parce que man fu ñu néewale doole nit ma taxaw te jamono booba dañ ko doon néewal doole su ma ko gisee suba mu néewal doole nit ma taxaw amul werante kon loolu moo ñu njëkk a boole kon ba may woo